parce que benn instant ah, waxu dëgg waaw xam xam nga wax dëgg ko ko na may li ko nekkul sax bàyyi ma expliqué ko bàyyi ma expliqué merci bàyyi ma expliqué waaw léegi xam mais jël sama xaalis baaxul ay naw exactement i accepte wax kasa lay doon Mohamed dama la doon jéem a dóor dóor bi mooy maa ngi jéggul est-ce que comprendre doo pas est-ce que doo pas amoo bejjaaw yow ñu ñaar ñoo tolloo ak ay nangte lañu est ñoo bokk génération agriculture bi ngeen a nangu dëgg la loolu dëgg la xam nga problème bi mooy lan. Hmm. xam nga problème bi Mahmoud xoola mu mënoo wax. ba pare ba pare di jéem a. protéger waxaat leneen loolu la comprendre nga. xam nga lan laay wax dama koy wax man ki nga xam ne waxul. fii sans cesse la fii sans cesse la fii baaxul. te dama lan la dama lan la ah dama lan la. man xool dégg nga xam nga. mën naa ko arrêter. déedéet déedéet man dama lan la. ci këru avocat laa juddoo. mënoo maa réeral ci wax wax bi benn waaye ñu jàpp la tuuti mais fii soo terrible la lay dugal ci te dafa am ay euh, jeunes yu bëri yoo xamante ni que dañuy ñëw États-Unis euh, topp culture États-Unis bu mu ëpp man loolu dal na ma mais ba léegi maa ngi koy regretté. Ah.